mbokki Sénégal euh, maa ngi leen di nuyu euh, en tant que président liggéey jariñu mam Cheikh Gueye nekk partenariat ak Murid Info di leen jotale jëm jëm rek ay waxtaan jëm ci wàllu wér-gu-yaram tey nag ñu indile leen benn feebar boo xamante ni mu ngi lëmbee jamono te sonne lool euh, ñu gën ko xam ci feebaru sëqët su tar feebaru sëqët su tar nag suñ koy waxtaanee dina am ñu mu jaaxal waaye dina am ñu ko xam. rawatina tubaab bi di ko wooyee feebaru tuberculose feebaru tuberculose dafa nekk feebar boo xamante ni feebar bu naqaree comprendre la waaye feebar bu yomb xam la mu am ay signes yu muy wàllante te gaaw a wàlle ci wàllanteen wa am doxalin yoo xamante ni ku ko gis wala ñu séntu ko ci moom danuy waxtaanee mandargaay jóg jot na mandargaay jóg jot na nag kun ko gisee waxuñu ne la am nga feebar boobu ñuy wax fi tuberculose waaye dafay mel ni war nga tiit su fekkente ni am nga ko feebar boobu nag di feebaru sëqat su tar ñu ngi koy xamee ci nit ki buy sëqat bu sëqatee sëqat su tar ba ëpp fukki fan ak juróom kon dafa war a dem ci fa wàllu béréb bu fajukaay bu ko gën a jege mu dem fa seet wàllu wér-gu-yaramam wàllu wér-gu-yaramam boobu nag dafa am lu ñuy tuddee crachat bar rawatina nag bu fekkente ni dem nga ci post bi ñu defal la analyse crachat baar mooy dañuy xëy fajar ñu jox la benn pot boo xamante ni soo ko fanaanoo ci suba gi ci ngay xaaxtandiku tifli ko yóbbu ko ñu defar la crachat baar bi xaaxtandiku boobu nag dafa nuróowul ak tiflit nuróowul ak tiflit tiflit mooy loo xamante ni dafa lay dikkal ci sa gémmiñ te loolu dafa ànd ak doomu aadama muy tiflit waaye xaxtandiku boo fanaanoo ak moom doomu jàngoro bi fanaan sa dënn ci xaxtandiku boobu ngay def ci pot bi moom la ñuy jël yóbbu ci laboratoire bi pour ñu xool ba xam feebar bi am na tuberculose wala amul tuberculose waaye nag loolu feebar boobu bu fekkee daf lay dikk dafa am ay signe yu muy àndal signe yoo xam ne bu ñu ko amee mooy li ma njëkkoon wax ci mandargay jóg jot na mooy da nga war na nga manqué lekk soo manqué lekk ñu gis ko ni yow màcc nga lekk waaye nag da nga commencé di jeex da nga commencé di tayal da nga commencé euh, di am perte poids mooy ñu gis ni sa poids matatul soo nekkoon 80 da ngay nekk 70 wala juróom-ñaar fukki kilo buñ ko giseen tey da ngay daal di nekk juróom-benn fukki kilo jàpp juróom fukki kilo waaye loolu yëpp taxagul nga dem waaye nag yooyu ko gisee ak crachat bar bi wala ñu gis ko ak saqat sutar kon dañuy wax ni nit ki war na jóg daal defe li ñuy tuddee bar bar bu boko defé su fekkenté luñu gis la khairun bu dee gis am ay traitement yuñ ci war def ba nga xamanté war mëna nek way nak lepp sens ci ñaar yooyu euh, ma wax muy euh, bar positif ou bar négatif mo ñun bu nu gisee positif bi rek dañuy gis ni kon ki am na traitement yu mi jël yu mu wara jël ay comprimé yo xamanté ni dañ ko koy jox sa su xëyee daf koy jël nga xamante ni ki ko koy jox mu koy naan day toog observé ko ci saa soo xamante ni yàlla dogal na mu koy xëy di ko jël su ko jëlee bu fekkente ni médecin bi am na wutal na ko accompagnant moo xam magam moo xam rakkam moo xam doomu baayam kon dañuy gis ni euh, loolu lu ko yombal day am lu yombalal loolu dafay am waaye bu fekkente ni yooyu yëpp gisuñu ko nag dañ koy encouragé mu gis ni saa su gisee sëqat bu fukk ëpp fukki fan ak juróom dañ koy delloowaat ci hôpital bi waaye nag euh, foofu li ci am problème mooy tuberculose dafa bari façon tuberculose dafa bari trop euh, bari gi mu ko bari nag dafa am boo xam ne dafa nekk ci kaw yaram ci deru yaram am bu nekk ci nopp am bu nekk ci biir am bu nekk ci tànk am bu nekk ci yax mais bii di wàlle moom lay waxee tuberculose pulmonaire ci biir xol lay nekk ci biir dënn kon bu fekkente ni nit ki gis na ni dal na ko lu tax muy gaaw a yomb dale foofu nag la problème bi nekk te ñun xam na ni jeunes yi am euh, pour ñu moytu tuberculose euh, dana xaw a jafe ndax promiscuité yi am mooy tey man la ak Serigne Mbacké Dieng ak keneen keneen ñu tëdd ci biir nekk man bu may noy ñoom ñuy noyyi man may sëqat ñoom li ñuy sëqat ñu ngi koy inspiré te buñ ko inspiré maa ngi leen koy wàll kon promiscuité yi am muy tëdd yu nu néeg yu xat gis nañ ni saa su nit ki bu ko dalee rek daf ko war a moytandiku rawatina nag li nga xamante ni mooy bu ko nit ki dalee ba pare waaye suñ demee ba xamal ni crachat baar la am na crachat bar bi set nañ ko dafa dafa positif positif boobu ñu gis mooy xamal na ni waa ji amee na doomu jàngoro bi ah, dañ koy daal di jox ci bis bi ñu koy gisee lañ koy jaa daal di jox li nga xamante ni mooy garab yi muy war a jël nga xamante ni bu ko commencé jël bisub tey rek. ba mi am fukki fan ak juróom bu ko dépassé léegi traitement rek lay daal di continuer waaye dañu gis ni doomu jàngoro bi commencé naa nelaw ci biiram dootu ko wàlle waaye bii na wàlle bi nag foofu la problème bi nekk nga gis ni fii may waxee ak yow ci vie ba fii may waxee yow ci mois d'avril gis nañ ni am na cent dix nouveaux cas cent dix nouveaux ci au district sanitaire képp bu Touba te gisagun waxaguma la yi dikkagul ak yi amagul yi nga xamante ni moo am. te tuberculose bu amee dafa am lu tubaab bi wax éternuer mooy tisli fii Sénégal dañu baaxoo boo boo tislee dañ lay wax yarakamula te yow ma koy tisli yëgal ni tisli bu am am na lu génn ci moom li génn ci moom ci biir dënn la jóge am na ñoo xamante ni tisli dafa am nu mu leen di def dañ seen héréditaire la bët bu set dañ koy def am ñoo xamante ni seen tisli bu nu amee feebar bu leen dugg wala bu leen poussière duggee. wala poussière bi ànd na ak lu seen yaram di bañ kaani la àndal wala poobar la àndal boobaa tisli boobu c'est pas grave ndax dañuy xam ni lii moo def infection bi la tisli loo waaye nag booy sëqat ci guddi gi muy euh, muy sëqat di sëqat di sëqat di répété kooku dañuy ragal lii ma la wax waaye rawatina nag yow nga am ko ñu gis ni ñun tey suñuy oto fii Sénégal ni mu baaxoo mooy ban day nekk nii ban nekk nii ban nekk nii oto bii booy xool dañ naan oto bi France la jóge weer yi kenn daggu ko rawatina de de huit heures à midi diggante boobu kenn du ubbi fenêtre yi parce que dañuy wax ni fii dafa tàng wala dafa sedd rawatina bu dee jamonoy sedd nga xamante ni doomu jàngoro bi nit kiy sëqat ci biir oto bi ba léegi génnagul biir oto bi parce que sëqatu tuberculose mënul am te àndut ak dara mënut a am te àndut ak dara ànd googu muy ànd ak dara nag saa su sëqatee feebar bi bu wàccee day dal ci biir oto bi wala yow mi mu dal mën na am amoo benn détergent doomu jàngoro yi sa yaram nga wala nga am. Euh, alcosel wala nga am benn lavage main boo xamante ni mën na la jàppale ci li nga xamante ni mooy feebaru tuberculose bi su boobaa day compliqué compliqué xamante ni wàllante bi di gën a gaaw kon gis na ni ñu ci suñuy transport mooy gis na ni suñuy nu ba bu nit ki sëqatee jàkkaarloo yow yow ndare mënoo ko wax wëlbatikul ndax baaxoowuñ ko ñun Sénégal waaye yow mi nga xamante ni xamoo ci dara la nga war a def ci oto boobu mooy nga jël mouchoir wala jël sa gémmiñ soo yëgee kenn koy touché ci biir bi rek war nga commencé masque wu te foofu boo masque wu ba pare waxuñu ngay ringer sa bët parce que ñun fu ñu toll dañuy ringer wu jël suñuy bët doomu jàngoro bi mbalit mi ni dajal weñ yi nangam li am suñuy bët dañuy gis que suñuy bët sax couleur bi ñu doon am dootu am ndax suñuy loxo ci boppam moo baaxoo microbe te microbe boobu muy baaxoo toujours day nekk suñu biir bët wala nekkaat suñu biir gémmiñ wala nekkaat mooy tax boo xamante ne dugg nga ci oto ba génn. war nga mën a laver wu say ndox ak eau de eau de Javel wala sa jëmmi boobu boo ko mënuti war nga def loo xamante ni ci distance bi nga def soo déggee kenn ko touché touché bu compliqué wala éternuer éternuer boo xamante ni dafa bari muy saq muy test li war nga gis boo génnee war nga am lu la détergé wu wala loo xamante ni li nga fa nekkoon war na am kon moo tax ci matinal bi ci suba gi rawatina bu ngeen bu transport amee nanu aéré suñu fenêtre oto su boobaa kii jëli garab ndax nag ki euh, war a garab te nekk nit boo xamante dafa néew doole kooku ci rek la dugg te mi ngi a commencé jël garabam ma ko wala ma ko war a poste de santé bu Dar wala Daaru Tanzil wala poste de santé wala Soura wala fu mën a kon ci rek la mën dugg amul aller retour 1000 francs aller retour boole ko di jëli garabam war ko def 6 mois kooku boo calculer par jour yi day 500 et quelques mille par transport te amagul li nga xam kon ci biir fagaru bii nga xamante ni moo am ci tuberculose pour cas yi nga xamante ni gis nañ ni ñun moo nu gën a sonal mooy nouveau cas yi tëdd ci biir kër yi te génn siwnu kon Serigne Mbacke dañuy gis ni nouveau yi nekk ci biir kër gi te génn li nu mën a jàppalee ci ñooñu mooy ñu gis ni boo saqatee loog fukki fan ak juróom ay waay waay waay institut de santé bu la gën a jege dem fa nga seet sa crachat bar te loolu doo ci fay dara crachat bar doo ci fay dara. ci structure santé bu mu mën a doon moo xam ci poste de santé bi moo xam ci district sanitaire bi wala muy case bi wala muy DES doom bi wala muy ci relais communautaire bi mu bindal la lu ñuy tuddee orientation ñu orientation ci relais communautaire wala ci poste de santé bi ñu relais ñu orienté la ci district sanitaire bi ñu defal la crachat barre nga xam li nekk sa dënn kon suñu problème mooy lan nit ñi mi ngi feebar bi mais nag fan lañu yore feebar mooy ci biir kër yi bit mooy feebar bi jekku nañ ko laay mën a wax jekku nañ ko ci faj mais wuñ ko ci walante batay da ngay gis kër go xamanteni sarax wala ngenté wala ciet wala serigne job di cietal juromi poti ndaa lay jënd potu ndaa bu ne ñu takku ko ci ben potu ndox syndicat syndicat ndox bi dañu jël ben bumbu bu ma tak ci ibra ndiaye ak nimi nané fat ko ji ak nimi nané cheikh gey ak nimi nané té te bi new ni ci la walante bi nek ndax nit ki mëna nanté salivam du genn wayé fagaru mo gën faju kon gis na ni ci euh, leadership transformationnel dañuy gëmloo que ne nit ki warul mën a dem di defi loo xamante ni méngoowul ci wàllu wér-gu-yaram te xamut la ko cay daaneel kon boo waree faju euh, xam nga fi ngay fajoo soo waree seeti sa yaram xam nga fi ngay seeti sa yaram kon li des mooy xam feebar bi nan lay wàllante kon sëriñ bu nu duggee ci wàllu ni feebar bi wàllantee muy nit ki day sëqat rek jublu la am lu génne ci gémmiñam dal la wala nga noyyi ko sa biir gemi ndax feebar bi ci biir poumo la nek su boba da day wal bu fekkente ni nak tëddeen bi munta ñak ndax nit mën na jabot te amul ay kër kon bëccëgam fenêtre am war na ubbeeku saa su xeye ba naaju rayon de soleil yi dugg ci biir ngir mën lak li nga xamanteni mo fanan ci biir ngir bu euh, oxygène bobu benen oxygène day ci biir nek bi ngir mëna ar ñi nga xamanteni ñoo ci biir rawatina nag lal boo xamante ne ñeent ñoo ci tëdd juróom ñoo ci tëdd kenn amee ci doomu jàngoro bi kon contamination bi foofu day yomb lool yomb boo xamante ni wàllante bi day gën a gaaw waaye nag rawatina ci oto yi ma la ko tuddee sànq rawatina ci li nga xamante ni mooy euh, ci charrette yi ci charrette yi ci sunu transport kon kii sëqat ngir yàlla na masque boppam da ngay taf sa gémmiñ saa soo fóotee musuwaar boobu bu demee ba tilim ba nga fóot ko da ngay jël beneen mouchoir bi waaye nag da nga koy weer fu tàng da ngay weer mouchoir bi foo xamante ne rayon de soleil yi dafay lakk ngir mu lakk doomu jàngoro bi doomu jàngoro bi nag mën na dund 72 heures doomu jàngoro tuberculose mën na dund 72 heures ci bu nekkee fu sedd guy comme sa saal bi ni mu mel nga xam tëju na mën na lépp man bu doon ma amee doomu jàngoro sëqat bi su ma fi sëqatee euh, mu génn mën naa ko fi bàyyi kon kiy bale bu boobaa saa su balee doomu jàngoro bi mën na ko noyyi mën na ko jëlee foofu. kon nit ki mën na ko jëlee ci foo xamante ni tëj nañ ko lu yàgg mu am humidité seddaay boo xamante ni doomu jàngoro bi mun fa dee ci 72 heures nga xam ne ci balee ko jëlee waaye nit fa bàyyi moo ñàkk na aéré fenêtre yi moo tax loolu dal ko kon yooyu ba tey jar na bàyyi xel am na boo xam ne muy nelaw ci doomu aadama te nit ki moo ko yeel boppam ñu baal ma ñi nga xamante ni dañuy utiliser wu lu mel ni cigarette seen dënn la nekk doomu tuberculose nag Sénégal àdduna wala ngaan képp ñëpp ko am. bi ni ak bu ni ndax ci biir jàngoro la nekk da ngay gis xale bi bu juddoo dañ koy ñàkk BGG mooy ñàkk bu koy aar ci doomu jàngoro am na ñoo xam ne ba fii may waxee yow boo demee seen épaule da nga fay fekk ñàkk bu naan ñàkk bu jar ñàkk bi dafa jar ba def góom ñàkk bu jar boobu mooy garantie nit ki giir ndundam ba du am feebaru tuberculose waaye garantie leen nag waaye néew la nga fekk doomu jàngoro tuberculose ki ko am ba pare ñëw contaminé la ko su boobaa la ñàkk ba defoon léegi lan am na lu day dalay dal mais am na leneen lu koy saafara ci ginnaaw la koy saafara lan la mooy nit ki nag moytu nekk nag un leadership mooy leadership transformationnel bu ñu koy wax mooy nga xam ni lii kat mi ngi wàlle mais ci nan lay wàllantee ni muy wàllantee maa ngi ciy teg sama bët ah xew yi ku ne xam na ni bari na magal Touba magal Kazu Rajab magal Daaru Xudoos magal magal gis nañ ni li nit ñi. utilisation bi ñu utiliser wu ndoxu raxasu wala ndoxu naan wala ndox bi dem ci suñu gémmiñ sellatu sell goo xamante ni baax na suñu biir xolu bopp yi kon nit ki war na mën a xool diggante boobu ba xam moom mooy am changement de comportement ci li muy lekk mooy am changement de comportement ci li muy naan mooy am changement de comportement ci ñi muy jëflanteel ci biir li nga xamante ni gis na ni dégg na lenn lu méngu ak loolu mooy sëkkat wala testioli boo xamante ni ki ko gis xaw na ñaaw njot ci moom xaw na ñaaw njot ci moom mooy waxuma nag nga gis ko tuuti rek muy sëqat nga ni ko dafa amee tuberculose laboratoire bi sa xam ko bala lay xamal ni yow da nga amee tuberculose daf lay xool ci laboratoire gis ko ci biir doomu jàngoro bi ci biir crachat bar bi ñu génn ko gis ni xam ne kii basile de Koch yi ndax doomu jàngoro bi microscope bi moo tudd basile de Koch basile de boobu bu ñu ko gisee ba xam ni dafa positif ci lañ lay daal di commencé jox doomu ja traitement li nga xamante ni moo jëm ci feebaru tuberculose kon daal pour te dire mooy ñun ñi nga xamante ni yàlla dogal na amaguñu ko. te gis nañ ni ñi ngi sëqal fukki fan ak juróom mooy soj benn buy faati fukki fan ak juróom amul soj bi passé fukki fan ak juróom amul kon bu passé fukki fan ak juróom ngir waay ci sama debi wax ba ci sama fin wax jëlal sa temps nga waxu ndank dem ci institut de santé bu la gëna a nga leen dama sëqal lu ëpp fukki fan ak juróom wala nga dem ci sa dees doom mi sa wetu kër wala nga dem ci sa bàjjanu gox wala nga dem sa relais communautaire wala nga dem ci district sanitaire bi ñu xool la sa crachat baa doo ci fay 1,5 ñu seet ko bu dee moom di nga am traitement wu juróom benn weer yoo xam ne garab yi su doon da koy jënd toll na ci 5 millions de francs ministère bi di la ko fayal ànd ko ak ay bailleur ngir loolu mën a faju ba mu jeex Sénégal dañ wax ni d'ici 2035 d'ici 2035 feewu tuberculose dafa war a jeex Sénégal te fii may wax yow Touba bokk na ci. dëkk yi nga xamante ni bokk na ci moo ëpp doomu jàngoro tuberculose ndax su ma la waxee ne dans ci trimestre bii ñu nekk quatrième mois lan toll te quatrième mois yi on a plusieurs cas nouveau cas waxuma la yi nekk traitement on a nouveau cas day am problème peut-être nag euh, ci saytu gu mujj bi gis nañ ni peut-être jaaykatu kafe yi maanaam bokkuñu si ndax ñoom li ñu jaay dafa tàng te doomu jàngoro du dund fu tàng waaye nag fi muy dundee mooy. lii lii lii yi nga xamante ni ñun ñëpp dañuy regroupé wu te ba pare mu nekk lii yi nga xam ne moom gën a bëgg mooy béréb bu sedd bu sedd néeg bu doxalin bu sedd ba pare doxalin boobu di am ndax doomu jàngoro bi fi muy lalu muy xol tàngul tàngoor woo xamante ni su génnee doomu jàngoro bi dafay daal di faatu ci sens yi ndax it humidité wala fi mu nekk moom day di méngoo ak li nga xamante ni mooy doxalinu santé communautaire te war ko saytu euh, pour gàttal daal euh, foofu laa man am lu may waxtaan. ci première phase bi euh, mooy feebaru sëqët sutar ñu koy woowee tuberculose laa bëgg ñu gën ko yeewu gën ko xam xam ni mi ngi gaañ mi ngi lor mi ngi rey te am na yeneen yu mu lëkkalool yoo xamante ni suñu ko yeneen beneen semaine mayatee den ci dikkaat ak yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.